jërë ngeen jëf ci topp gi ngeen di topp seen seen bii di xewal gi TV ñu dikk ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi ci diwaanu Nioro ak li ko wér ci kàllaamay koccu li gën a fës ci bopp xibaar yi mooy benn ponk rek la tey e, ndimbal li jógee ci ñi nga xam ne dañoo nekk ci Nioro di ko jébbal ci e, district sanitaire bu Nioro e, li ci gën a fës nag mooy mouvement nawetaan zone 1 bu Nioro am nañu ndimbal lu am solo jébbal ko ki nga xam ne mooy médecin chef bu district sanitaire bu Nioro nga xam ne ñooy mooy euh, escofi di mbootaayu jigéenu jàngalekat yi ci ñooro ñoom itam dugal nañu seen loxo ci xeex bi ni xeex wopp si nga xam ne mi ngi wéy di alaftanu itam ñii nekk ci àdduna wërngal këpp ak euh, Sénégal gi nga xam ne mooy sunub réew euh, ba tey itam ñi nga xam ne dañu leen di tuddee sport pour tous ñoo ndombal tànk ci dëkk bi di yëngu ci wàllu tàggat yaram dugal nañu seen mbir ci xeex bi ñuy coronavirus ba tey itam kii di Mamadou Moustapha Ba Euh, di directeur budget euh, di doomu Nioro moom itam dugal na loxoom ci xeex bi nii xeex wopp si di coronavirus. leen dimbal da nga ci fekk loxol borom ñi nga xam ne ñooy communauté de bi nga xam ne ñoo ŋànk lépp luy wàllu yaram fi ci Nioro ñoom itam kenn demul ñu des dugal nañ seen loxo bu baax a baax ci xeex bi nii xeex wopp si di coronavirus ba tey itam ñi nga xam ne dañu yëngu ci wàllu tàggat yaram di xibaaru nawetaan euh, ñoom itam bokk nañ ci ñi nga xam ne dugal nañ seen loxo ci xeex bi nii xeex wopp si fii ci diwaanu Nioro ak li ko wër ba tey itam ñi nga xam ne Euh, muy euh, F bu Nioro di euh, seen njiit la di Baba càmm moom itam dugal na ci xeex bi nga xam ne xeex nañu ko wopp si ci diwaanu Nioro ak li ko wër ba tey itam euh, ñi nga xam ne euh, dañuy yëngu ci wàllu politique muy Abdou Ndiaye dëkk fee ci kër Maba Diakhou euh, yor ndombal tànk itam ci nguur gi ba tey itam kii di Ali Mané di responsable politique ci parti boobee di PS moom itam dugal na loxoom bu baax a baax ci xeex bi nga xam ni noo ngi koy xeex lii di wopp si di coronavirus yëbbal ko ki nga xam ne mooy médecin chef bi nekk ci district sanitaire bu Nioro ba tey itam ñi nga xam ne ay maanaam étudiant lañu fiitu fecca ndakaaru euh, ñoom itam dugal nañu seen loxoom bu baax fi ñu koy tëjee nag mooy euh, doomi ñooro yi nga xam ne ñi nga fiitu foofee ca ndakaaru euh, ñii politique ak ñi politiqueul ñëpp rek dajale nu xeex bi doon jenn di wopp si nga xam ne mi ngi wéy di alaftanu ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñoom itam ñu daal di dajale seen ndimbal jébbal ko kii nga xam ne mooy honorable député Jéema Ndiaye Ba teg ko ci loxo mu daal di koy jébbal kii nga xam ne mooy médecin chef nekk ci district sanitaire bu ñooro li moo doon li gën fees xibaar yi ñoro yi ki nekkoon ci réalisation bi di Cheikh Gassama ki nekkoon ci caméra bi di Basirou Mbaye ki leen wute woon ci kàddu gi nag di Babacar Mbow di leen ñaanal nag jàmm ju sax dakk ju dul dàkk jërë geen jëf